règlement intérieur bu téré ab député mu commerce mba mu am ab société xawmako té te ngi ci quatrième législature mais lima ma d'accordul mooy marché ay milliards yo xamné ne ñeneen mën nañ ko def nga jël ben Moustapha Cissé Lo nekkul corporation bobu amu ci auto camion 30 tonnes 40 tonnes gros porteur ñoy seuf ceeb ak i nga fab marché bobu jox ko mu war caa am ay centaine de millions te da koy jox presque xaalis liquide mani lolo rafet l'oumako. député bu ñu ko bëgg jox war nga ne déet nañ seet ñeneen ñi ci ci secteur bi di ay transporteur te ami camion ñu bok ci waye nga jox ko ko mom mu dem luye ji camions transporteur yoyu. dagg seen xaalis ñu jox la prix bu bax yow nga luye sax camion jambour pour un mois def ci 5 rotations wala six rotations. loolu bokkul ci transparence ñu bëgg nag loolu ministère bi leeral ko bu loolu pare ceeb bi nga xam ne bii moom ci boppam jënd nañ ko muy cent mille tonnes ñu wax ñaata commerçant ñoo ko jënd nuñ leen joxe marché bi ba ñoom ñu jënd ko te liñ ko jëndee man buñ ma joxoon xaalis bi lu ko gën ndaw danaa leen ko jaayee ceeb